waaw Moussa man dama lay suivre lu bëri ci internet bi ci site yi ci télé yi dama lay suivre parce que dama jékki-jékki découvrir une autre facette de ta personalité ma bëggoon xam sérieusement daf nga gis nga lecture bu abu daf abu ku ko xam-xam ni moom du far Sénégal a ko ñor mais dama buggoon xam yow ban jàngat nga am ci lii parce que man dama jàpp ni politiciens yi ñoo bëgg jàppee réew mi jàppee ñu ay jouet parce que tey mënuma comprendre li indi lii yëpp dafa am benn homme politique nouveau avec des idées nouvelles avec un charisme boo nga xam ne ñëpp ko ko nangu mu am envergure man ànduma ci partem bokkuma ci partem mais yàlla dëgg la bëgg tey Ousmane Sonko maa njëkk taxaw ma wax ni que c'est un phénomène ah une réalité sénégalaise te que réalité la bi ma koy wax gars yi di wax waaye kii lu muy wax ni bi may taxaw di wax c'est le patron de l'opposition kenn waxu j'étais le seul le dire bi ma bi ma ko seetaanee déglu ko gis benn amour bu doy waar bu ko jeunesse bi xam jox pendant trois ans mu téye eau de pavé tey ñu ne dafa war dañu war a def dialogue pour mu bokk moo Karim Wade Karim Wade kenn du taxaw di wax ni que amul envergure d'un homme d'État Ousmane Sonko kenn taxaw di lam-laamee ni dafa am envergure ba pare am benn yaakaar bu bu xale yi am ci moom ñu ne ñaa ñooñu duñu waruñu dialogue waru ñu bokk mais Sénégal yi lan lañu ñu bëgg Pa Moussa il faut nga leeral ñu xam nga côté boobu. waaw <coughs> jaajëf pako xam nga personnellement euh, man euh, le phénomène euh, politique ci société bi du ma ko jàpp par rapport à benn équilibre wala benn neutralité bu may taxaw bu ñu ne problème bi lii la man dama naan sama position lii la mu leer. alors donc li andi coow li yëpp effectivement lucidité bi nga am ba gis benn acteur politique di dem nga ne kii phénomène la bu doon ñi mu jàkkaarloo ci adversité aussi traité nañ ko. ak euh, autant euh, de worma comme ay naataango xëy na mënoon nañ bañ a yegg fii mais dafa am euh, lu jug bëgg remettre en question loolu noonu par force ba finalement l'adversité politique s'est transformée en une animosité politique c'est ça la réalité boo xamante ne moo yóbbu Sénégal fii da ngay dem ba da ngay toog di xool sur les réseaux sociaux ci ci ci place publique bi ñuy xeex ci wàllum politique nga xam ne ñii en la ñuy waxante te pourtant adversité bu nekk jaar na fi de Lamine Kouradé ak Mamadou Dia euh, ak Senghor ba tey jii nii lu nekk jaar na fi ci adversité politique mais dafa yegg si woon dans un cadre normal alors bu demee nag ba jéggi euh, euh, la place publique di dugg ci ay vie privée jàmbur di dugg ci ay sa papa sa yaay cest à xam ne le tissu euh, politique est carrément gangréné par une haine boo xamante ne moom moo envahir Sénégalais yi de tous bords ba kenn kuy wax ak sa morom da ngay sentir wax bi ni muy ñagasee te loolu mënoon a yóbbu fu ne alors euh, mais décrispation ci euh, espace politique lan moo koy andi mooy élection dañoo dem ba à un certain moment donné kenn xamatul élection kenn lay am Sénégal et loolu loolu c'est d'une gravité telle que boo xoolee euh, boo defee une analyse euh, géopolitique tuuti euh, nga dem Côte d'Ivoire Guinée à un certain moment donné Mali li wu dooroon dëgg-dëgg source de tension bi mooy xamuñu kañ mooy élection or Sénégal amoon benn acquis démocratique boo doon calculer ba l'an 3000 mënoon nga xam ban jour la Sénégal di def élection présidentielle calculer rek les cinq ans de mandat jàpp ne le dernier dimanche du mois de février ci la élection présidentielle di am. mais bul fàtte ni ñoom ñoo dem seeti président su élection amul. ñoom ñoo dem seeti mais bàyyi mais mais Paco ñoom bi ñu seetee président. le ah. collectif des recalés. la la ah. leen président wax. daf leen leen calendrier électoral bi dañ ko war a respecter les décisions du conseil constitutionnel ne sont pas susceptibles de recours. loolu la leen wax ah. demal xoolaat. conseil constitutionnel dañ leen jiñ luubal. bàyyi ma ñëw luubal boobu noonu. nee na la d'ici à l'extinction du soleil. doo ko gis doo ci teg bët doo ci am preuve xam nga lu tax. et d'ailleurs c'est absurde quand PDS. du président Wade mm-hmm. le PDS de Serigne Diop Sadakhta le PDS de Fara Ndiaye ñu en un certain moment donné de leur vie politique ñuy tetee le courage de Cheikh Tidiane Coulibaly Wade na serait jamais président en 1900 à 2000 jamais de la vie parce que wadd bul fàtte ne après l'assassinat de Maître Sèye dañ koo jàpp sans enquête sans orientation aucune jël na tëj ci kaso bi procureur dóor euh, dóor ko mandat de dépôt juge d'instruction inculpé ko à l'époque dafa amoon lu ñuy wax double degré d'instruction bu juge d'instruction pare dañuy yóbbuwaat chambre d'accusation mu defaat beneen instruction boobu noonu Cheikh Tidiane Dia Coulibaly euh, mi moom moo nekkoon président de la chambre d'accusation démissionné wul de c'est lui qui a donné non-lieu au président Wade yow Kéba Mbaye ngay wax mais Wade bu génnee dans l'affaire Maître Sèye en main appliquer le droit sans aucune jox président wadd non-lieu à l'époque tey ni ñuy waxee ay Sabassi Faye ay euh, Ousmane Racine Thior ni ñu leen di gañee ci euh, am fit noonu lañ doon waxee euh, Cheikh Tidiane Coulibaly bi ba pare mu nekk magistrat boo xamante ne plus de cinquante ans d'expérience kenn mënu koo dégg ci lii alors et d'ailleurs ñi dugal commission d'enquête parlementaire pour élucider la question de de de de cette corruption mais ana commission ba ndax saay na kañ ñu doon jiiñ waa parce que waa PDS ils ont pointé du doigt le premier ministre le président de la république lui-même nee na ko renouvelé naa la sama confiance kon où est le problème. mais selon vous le problème du report ce serait plutôt par rapport lié à, à Karim Wade ou au nouveau candidat de l'opposition alibi la. c'est euh, ah, alibi c'est un alibi qui n'a pas de fondement qui n'a pas de preuve et d'ailleurs aussi longtemps que euh, la commission d'enquête parlementaire mu doon continuer PDS mënuñu woon jox preuve d'ailleurs la résolution bi ñu dugal pour installer cette euh, commission d'enquête parlementaire ça n'a pas cité de nom ça n'a pas fait d'accusation ni de somme sur rien du tout alors qu'il n'avait pas de preuve ñoom seen ambition et wax nañ la ko mooy Karim mbokk et que Karim ñàkk bokkam Paco nee na dina ci ñëw mais loolu c'est le droit c'est flagrant l'invalide euh, son invalidité mën nañ ko euh, développer ma wax la des preuves et des articles yuy waree ne cari mënul woon doon candidat alors mais. lii dañ cee mooy donc le nouveau le nouveau le nouveau candidat de l'opposition ça les a plutôt surpris alors. qui ça, ça les a surpris. Euh, non pour le pour l'opposition. non enfin euh, je ne pense pas pour le PDS parce que le PDS ne représente pas toute l'opposition aussi. Mmh. et à un moment donné le PDS et le parti au pouvoir avaient la même le même objectif. c'est-à-dire le report des élections alors l'affaire Karim Wade n'était que que petit alibi de la d'autant plus que la commission d'enquête parlementaire mais euh, la commission a pris fin parce que le juge Cheikh Ndiaye il a porté plainte donc ci euh, dans le cadre euh, de la procédure parlementaire s'il y a une procédure judiciaire la procédure parlementaire prend fin donc d'ailleurs on nous aurait dit que ni on a reporté les élections pour rien du tout pour rien du tout mais yow impasse bi ñu nekk. Mhm. qui est coupable. le président de la République oui impérativement parce que attention euh, xam nga tey jii nii bu ñuy joxoñ opposition def ngeen di def mais l' opposition ban ministère la ñuy jël dans le gouvernement aucune ministère de la parole de la rue ils n'ont aucune responsabilité le président de la République bi ñu ko investir d'une mission. la société civile. mais xam nga kan la ñuy rendre compte après. Hmm. c' le président de la république Paco parce que moom la ñu investir te d' ailleurs constitution moom moo ko wax que ni yow yaay garantir la stabilité institutionnelle donc kon kooku euh, ni Papa doon wax euh, Yaaya ku fi xaaxam jàmm sax yaa ko ko war a simpil donc loolu day expliquer l' étendue de sa responsabilité alors donc kon te tey d' bi ñuy euh, reporté wala bon bon moom lui il n'a pas dit report dans son fameux discours la ñuy tetee son son cette décision mais le 25 ñu ngi préparé élection moom moo jël euh, décision et il a évoqué une crise imaginaire des institutions parce qu'à l'époque il n'y avait pas de crise institutionnelle d'autant plus que euh, l'institution parlementaire mi ngi woon dox normalement alors donc kon report bi moom la alors est-ce que report bi dafa justifier woon moment boobu noonu est-ce que report bi euh, dafa am impact benn man jàpp naa ne li doon constituer stabilité Sénégal mooy ñu mën a xam datu élection mais moment bi mu koy def ñun boobu fekk na ñu ngi def trois ans ci ginnaaw que Ousmane Sonko dafa war a bokk que ni Ousmane Sonko bu ñu demee élection en 2024 te bokku ci on n'appellera pas ça élection présidentielle mais sélection présidentielle